algérien di CREA objectif bi maanaam la ko wundu convention boobe bokk na ci lëkkaloo fas yéene teg ay stratégie maanaam xalaat nas ay pexe ci lu jëm ci wàllum industrie wàllum alimentation wàllum commerce wàllum garab ba ci wàllum économie Kamul Moula mi nga xam ne mooy njiitul conseil de renouveau algérien nee na Sénégal réew la moo xam ne maanaam ay frère lañ moom ak Algérie loole nag tax na Sénégal soxla na ko ko gunge yéene kaay gi di Rewmi Quotidien nee na première salon El Jazeera El Tikar nekk na loo xam ne lu am solo la rawatina lu jëm ci koom bi nga xam ne ñoo ngi ko fiy waxtaanee yéene kaay gi di Libération moom xëy wax ci coalition Yewwi Askan Wi ak élection député yi nga xam ne moom la ñu ma la journal bi nee na coalition Yewwi Askan Wi nag jéngu nañu ñoom Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias bu mag a mag ci diiwaanu Ndakaaru ngir nag mën a jàmmarloo ak Macky Sall ndax ñoom nee nañu Macky la Macky Sall li mu xam maanaam mooy defante ak moom yéen kaay gi di Vox Populi Ousmane Sonko xëy di xibaar naa ñu nag jamono ji li nga xam ne mooy waxtaan wi ak li nga dëgma moom njiitul Pastef maire bu Ziguinchor nee na sonn na tay na damm ci conseil constitutionnel bi nga xam ne nguur gi la fi nekkal journal bi di critique nee na en tout cas li weer moo tere élection député yi agsi waaye nag pëcc xóob yi pëcc xóob yi jamono ji doy na war contestation yi ma ngi mel ni bi xëy tënk kàddu yëpp mu njëkk mi nee na xam ne mooy xeeñ ci réew mi neexu la yéen a kaay gii de Le xam ne na leen a dala loole moo tax njiitu président Macky Sall moom nag ma ngi waajal ab lettre boo xam ne daf wax ak ay militant ma bañ ñu daal di frustré yéen a kaay gi de la Soleil ak Rewmi ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom Déthié Fall ni ki démb daan nañuy saisir nag conseil constitutionnel ngir nag seen liste bi nga xam ne bëgg nañu koo annulé ci diwaanu Dakar ñu daal koy dakkal waaye nag ñoom waa Yewwi Askan Wi tamit saisir nañ conseil constitutionnel la Tribune ngir nag ñu daal di annulé liste benn bokk yaakaar bi ndax moom Bougane dafa jàpp ne benn bokk yaakaar dafa ëpp li nga xam ne mooy ay parrain te loolee du dëgg du yoona ba tey ci yéen kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Sambo nee na nga xam ne fi la réew ni ak pëccixoo conseil constitutionnel rek ñoo mën a indiwaat jàmm ñoom ñoo war a mën a liggéey lu indi jàmm maanaam wax mbir yi na nga xam ne moom la demee su ko defee rek jàmm ko nag teg suñu bopp ndax li e e bi ko defoon fii ñu tolloog wax jéeg pii coog ci fekk Déthié Fall niki démb ginnaaw bi mu déposé ba pare nee nag bi la yoon xanaa conseil constitutionnel danañu nag wax dëgg gi yéen kaay gi di wal fa jëri nee na en tout cas li ambade sala juróom-ñaari sage yi jamono ji pression bu mag moo nag gàllu si sunu ndoddoo yéen kaay gi di la turbine nee na Moussa Tine mi nga xam ne moo nekkoon ci coalition Yewwi Askan Wi ci ñaar fukk ak benn lu place ba daat nay démissionné ci Yewwi Askan Wi yéen kaay gi di 24 heures ak l'info Barthélémy Dias ab ATM niki démb la woon dañu ko mujj dàq ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre moom doomu Jean Paul Dias na nag dàq nañu ko waaye nag ñun danañu taxaw danañu mobiliser te danañu xeex ndax avenir réewum Sénégal du ñu bàyyi Macky Sall di ko saax-saaxee moom Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru nee ñii nga xam ne ñoom la ñu dénk réew mi dañuy foowee sunu institution yi yéen kaay gi di Sud Quotidien maire bu Ziguinchor di Ousmane Sonko nee na nag Barthélémy Dias jamono ji ñoo koy jéem a tongtongal waaye nag na leen leer na juróomi at moom Barthélémy Dias dina ko jiite mairie bu Ndakaaru mu te bis Diagne mi nekk ci kasu bi génnagul ci mball ge ndax nag am na ay murid yoo xam ne jóg nañu porte nañu plainte Cheikh Omar Diagne ndax nee ñu day wax lu dul dëgg ci yoonu murid yéen i kaay gi de la témoin nee na am na lu toll ci fanweer ak juróom-ñaara ci mbàkke-mbàkke yoo xam ne ñoo porte plainte Cheikh Omar Diagne journal bi de Les Échos ñu xëy fekk fa Habib Aïdara mi nga xam ne moo jiite syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk Senelec maanaam di Sutelec lii nga xam ne moo xew jamono ji ci Senelec ci coupure courant yi bu ñu ci waxul naa am lambaay mën naa ñaawa yéen a xëy dañu xibaar naan ñu Sadio Mané jamono ji jege na lool dem fi nga xam ne mooy Paris Saint-Germain journal bi nee na ki nga xam ne mooy Kylian Mbappé moom tim jege na lool ngir nag dem Real Madrid mbir mi sax toll na ci quatre-vingt-dix-neuf pour cent ngir nag Mbappé dem Real Madrid ma ne la mbir mi presque sotti na yéen a kaay gi xëy dañu xibaar naan ñu fédération française bu football ñoom nag ñoo ngi teg pression ci Idrissa Gana Gueye ndax ñoom nee nañu ko il faut nga sol nag maillot Paris xam ne dañ see def couleur borom ñaari tur yi photo wu loolee moo la ci mën a génne ci